xam nga boro jigéen ci dëgg-dëgg mm-hmm. barabam mooy kër jigéen ab dalwaay la mm-hmm. kër gi la war a taxawu ba li ne ci kër gi mm-hmm. ak ñi ne ci kër gi buñ génnee mën a def seen liggéey su demee ba leneen di am faw da caa war a déggoog borom këram waaye mu sañ-sañ jekki-jekki ni faw ma génn tey génnu jigéen da am yu bari la muy liggéey dem ay ay tënk yu bari yu ko tënk jigéen du ne lu ko neex la liggéey wala fu ko neex mm-hmm. jaxasoo ko ko neex mm-hmm. islam mm-hmm. su su su gisee ne liggéey bi aajo la wala baroora la mu dafe ko biir kër bi mooy la gën su mënta ñàkkee dina jege bañ a te it na doon liggéey boo xam ne dëppoo nag ni yàlla bind jigéen jàngaleeg fajat yooyu moom mën nañoo wax ne jigéen ku ne mën na ci yëngu ndax Mm-hmm. ni leen yàlla mooñaale yooyu yooyu yooyu ci la bokk waaye nañ bàyyi xel ñoom jigéen yi ne saa bu ñu génnee seen kër dafi leneen mm-hmm. bàyyi nañ seen ginnaaw loo xam ne kenn mënu leen caa mm-hmm. jigéen kenn mënu ko wutu ci kër moom la yàlla bind ngi mu sàmm kër li jaado woon mooy ñu toog ci kër yi bu góor ñi ñëwee sonn jaaxle jàq ñu defal leen dalal leen delloo si leen lañ nàkkoon ba bu génnee mën a doon a jàmbaar Mm-hmm. bare waa na góor ñu génn man seeni moroom mm-hmm. soxna yu baax na ci seen ginnaaw waaye mm-hmm. bare waa na góor gu toll na ñëpp te mënut a jëriñ kenn amul benn jëriñ fu mu génnee dañuy xëccoo ñàkk ko <laughs> soxna su jàggale moo ne ci këram mm, di ko di ko tiisal ak jàqloo ak saa yu dikkee gën a tiit bu génne day génne ak ragal loolu yëpp mën na bàyyi xel te it ñu bàyyi xel ne ñoom yar li leen yar lool yi ndamul jigéen dëgg-dëgg mooy génnul këram waaye ña baax ci biti ñëpp est-ce euh, ba tey ku génn na mbedd bi. Mhm. di njiit. Mhm. di kilifa gu mag. Mhm. ak lu ma doon ci àdduna. ñu ne ka ko yarkat taxaw ko ma nga ne ci kër ga toog. nu mel la liñ am moo gën a yàlla ñoo leen di gëm loolu waaye ndam. mooy ñëpp loxo maa ko yar maa ko toqi mhm. mbaax gii maa ko ci sóobu mhm. loolu loolu laa jàpp ne jàmbaaru jigéen jàmbaaru defar ñuy defaree kenn ku ne daa am wàllam daal daa am wàllam nit mhm. day wuute daa ko faral di wax ne ba nga ba ngay gone ak yéen ñi def genn góor lu mu jàmbaare jàmbaare gu ko mën a dékk vingt quatre heures amul yaay nag lu doom ji gën yuuxoog lu gën a def it du ko yëg yàllaa ko bind noonu loolu nag kenn mënu ko cee wutu Mhm. kenn kenn mënu ko cee wóotu ñu bàyyi xel loolu bu mhm. baax a baax mhm. euh, bu bu ko wut amee rek mu feeñ ci xale yi mooy li ñu gis ni ay gone yu màgg matul liñ doon ñi màgg di wax lu bon seen yaay ngay ñu dégg diw daa rey yaayam lu ko waral ak yaay la dund ak umuma dañ koy dund loolu imaam Xasan bokk na ci li nit ñi di waroon a sóoraale mooy yooyu dañ ko war a jàng dëgg la dëgg la ak doon yaay ak doon soxna dañ ciy tàggat nit mag ñi mm-hmm. euh, seen kër yi soxna yu baax yi mm-hmm. loolu moo doon seen liggéey mm-hmm. dañuy waajal jigéen ci jàng waaye ko ci liggéey waaye ko ci nu muy nekk ci biir kër nu muy doonee soxna ak nu muy doone yaay nu muy doone yaay am doom taxut a mat yaay déedéet jigéen ñu bari fi matuñu yaay ñu faral di wax ko ni bari naa leen day na paan yaay <laughs> yaay tënewu la guddee bu tëddee mu la njëkk nelaw léeg-léeg xam ne loru nañ seen yaay tëdd seen kaw matadi yaay la ñenn ñi wut dërsu teg ko ne li mhm. tànni fa xale ba mhm. tàngooru yaay du ko yëg kooku bu màggee lu ko lu ko boole yaayam uñ gën relation ñenn ñi te bañ seen ween am lu ci sikk ñu wut ay biberon di ci def meewum nag mhm. togg nañ ñu naan am nag lay doon xelum di naan ñi rek nag <laughs> faral di wax ñu bàyyi xel moo tax benn waay boo xam ne am solo nee ñetti dee ñu wax xale yi ñetti dee berjo bon ak biberon est-ce que waaw day na bon na de. bon bi mooy xale bi nga xam ne. <laughs> Hmm. booy dem xëy sànni ko fa. alal moo ko boole xale bi. Hmm. gis nga soo xasee génn. Hmm. muut mbaa mu xaw ko rey rek. dëgg la de. boo fa nekkee xëy lay nekk di maslaan waaye boo xasee génn moom. daal di sori dañ koy coow. ay jànq yu rëy. seen dooñ patron. ndax dañ leen di buñ génnee nag moom yat rek. kooku du am jom. dëgg la. yooyu yëpp ne jigéen ñaa lañ ko xam defar nit ba sotti mm-hmm. fu génn ñu tudd ko ñu ne yaayam ak soxnaam ñoo ne ci ginnaaw mm-hmm. macha allah loolu mooy demul jigéen bu ko defee nag bu loru amee ba liggéey mënta ñàkk it mm-hmm. ñu xam ne jigéen lañ ok te ñuy liggéey nañ bàyyi xel ne jigéen lañ ay jullit jigéen lañ ñoo xam ne bu ñu seenu yàqu xeer bi da ci yàqoo dëgg la seenu defaru xeer bi da ci defaroo